aéroport bii ñu jógee 1960 la woon ñu ngi ciy ñu koy karkaral mais boo ko xoolee tey fële budget bi rafet na trop waaye jafe-jafe yi bare na ba nu dem nag ba toll ci l'état à 34 pour cent bari tàmbali yëf yi dañ ni état bi am na lu mu ci am ñu ne état ñaata la am état ni am na ci 34 pour cent fii ñu nekkoon ci ADS e ADS e ñëpp xam na ni état bi moo ko moom. moo waraloon ñu doon xeex bi ñu bi ñu commencé dañu bëggoon recruter waat ñenn ñi def 25 ans de service ñenn ñi def 15 ans ñi def 25 ans ñi def 30 de service ñenn ñi dese leen 2 ans pour ñu retraité bi Turquie yi ñëwee dañu wax ni dañu war a recruter waat Turquie yi 64 milliards la ñu joxe bi ñu ñëw fekk nañu aéroport Diass 70 pour cent ci liggéey bi achevé nañ ko waaw mais yow 64 milliards bu ñu ko laajoon adresse bi sax ñun ñu joxe ko ñëpp xam nañ ne euh, aéroport bii euh, Blaise Diagne moo ko tabax. Thierno Alassane bu yàggul mi koy wax ci benn interview dëgg la il a raison dañu wax dëgg alors mais liggéeykat yi dafa mel ne que foofu affaire de esclavage moo fa am Turquie yi ñoo am salaire yu ma yu yu ngand yi kenn du gis seen biir seen ay seen ay numtati seen ay machine bopp la ñu yor et tout ça maintenant même sénégalais yi ñooy def liggéey ba nga xamante ni moom moom ci aéroport Diass boo demee ci pic bi boo demee ci aérogare bi soo demee ci toilette bi foo mën a dem nit ñu ñuul ña fa nekk mooy ñi nekkoon ADS te ñu reversé leen boo demee ba ba ci biir piste bi sénégalais ya fa nekk or que ñoom il c'est-à-dire ñu ngi seen ay bureau ñu ngi ay salaire yoo xamante ni bu buñ ko tuddoon fii am na ministre yoo xam ne fii Sénégal fayeekuñu ko ñun fan la ñu nekk kon donc vraiment aéroport bii sénégalais yi tabaxoon ba mu àgg ci 70 pour cent mais lan la jëriñ ko tey ci sénégalais yi lépp a cher ci fo ci aéroport boobu noonu yàlla dogal nag ba nu demee ba léegi ñu nax ñu ba nu àgg ci loolu li gën a metti ci liggéeykat yi actuellement nit ñi liggéey ñu lu ñu xam quatre heures du matin la ñuy yeewoo dakaar dëkk ak dëkk dañuy liggéey Dakar ak Thiès ñëpp xam na ni dëkk ak dëkk la mais amuñu sax mutation or que nit ki boo ko jëlee dëkk ñëpp xam nañ loolu soo ko euh, jëlee dëkk pour muy liggéey beneen dëkk mais da nga koy muté mais lii yëpp dañ ko violé jël ko teg ko fële moom daal yàkkam di gi ñu nekkoon daal ci ren salon d'honneur bu aéroport Blaise Diagne ba léegi parewul waa kon Turquie euh, finalement lan la ñu jëriñ ci biir aéroport bi. te Turquie nu ñu bëgg doxalee nu ñu bëgg ñu nekkale ñun duñ ko nangu. fii Sénégal ñu ñoo ko moom parce ñu ay sénégalais lañ ñoom peut-être ils ont euh, dañu jël seen xaalis ñoom investir fii ay 64 milliards loolu du loo xam ne war na mën a jaaxal état Sénégal bañ ñuy noot def ñu comme ay raba àll ñoom lu ñu lié c'est un protocole d'accord boo xam état Sénégal la ak ñoom mais ils n'ont pas respecté ça ils ont tout bafoué te loolu duñ ko nangu. wax dëgg yàlla. syndicat bii dafa juddu waaye dafa juddu ci dëgg juddu ci xeexal liggéeykat yi lii may wax nii wax naa ko ci bu yàggul bi jigéen ñi di feet bi ñuy feete le 10 le le le 8 mars Maimouna Ndoye nga toog ma ne ko nit ñaa ngi lekkoo ak a naanoo feetu jigéen ñi la ñu ngi gërëm ñi organiser ñëpp madame la ministre ma ne ko waaye nag naqar gi ak métit gi bari na te boo yéexee daje ak ni boo yéexee woote di nga àtte parce que nag ñun duñ ko nangu pour que ñu ñuy def ay esclave foofu noonu am amoon li ñu amoon Dakar fii sax amuñu ko fële rapport bi ñu doon wax sax allemand yi proposition yu ñu indaale woon quoi qu'on puisse moo tane lii fi nekk